asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV euh, mbokki Sénégal mbokki jullit yi mbokki département de Tivaouane yëpp euh, dañu ñëw nag pour euh, indi leen ay information yoo xamante ni rek dañ ko taataan ci problème boobu fi amoon ci xale boobu mustafa nga xamante ni dañ ko rayoon ba pare lakk ko ngeen gis ma bërki démb ma dem seeti ki nga xamante ni mooy wéy juróom bu góor waxtaan ak moom Euh, ngeen dégg yi mu expliqué ba ma fa jugee tamit ma dem ma waxtaan ak nga xamante ni mooy Jakarta man yam daan àndal di euh, dawal Jakarta ngeen dégg cri de cœur bi ñu def yuuxu bi ñu yuuxu vraiment ci méttit lu li ñu def seen euh, rakk jooju vraiment ngeen dégg xale yi ni ñu waxee. waaye di leen indil benn information ci wéewu béy ci ni di sant nag bu baax a baax la police de Tivaouane di ci sant commissaire Diouf jàmbaar la ak élément yi mu àndal Euh, ci sama premier vidéo waxoon naa leen ni leen euh, yàgg yàgg yàgg yàgg ki ko def day feeñ euh, am na nag benn suspect boo xamante ni la police de Tivaouane def nañ ci liggéey bu mucc ayib liggéey bu rëy am na ku ñu teg loxo pour le moment nag mënaguñoo wax me am na ci ku ñu teg loxo mu ngi ñu téye ci police bu Tivaouane di xool fan la wàññeen di mujjee ki bëtam waxoon naa leen ni leen crime bu mel noonu ku ko def yàgg yàgg di nga feeñ. am na suspect koo xamante ni sunu xelu xelu xelu xelu xelu policier yi ak le commissaire Diouf euh, teg nañ ko loxo pour le moment mu ngi ci police bu Tivaouane di continuer seen liggéey di leen wax ni leen euh, police bi vraiment ñu ngi leen di sant bu baax ci liggéey bu mucc ayib bi ñuy def ndax depuis keroog ñu def mbir moomu ba léegi lekk nu nelaw tu naanunu nelawatunu guddeeg bëccëg suba ngoon ñoo ngi ci seen liggéey ngir jéem découvrir ki nga xamante ni mooy malfaiteur bi Euh, pour le moment nag ñu ngi continuer liggéey bi actuellement nii am na koo xamante ni teggandi teggandi nan ko loxo euh, téye ko mu ngi ci police bu Tivaouane euh, di continuer liggéey bi di xool ba xam est-ce que fan la wàññeen di mujjekk ba waaye daal fi mu nekk nii li leen mën a wax ci loolu nga xamante ni mooy bi nga xamante ni moom lañ rayoon ba pare faat ba pare lakk ko am na ku ñu teg loxoom am na ku ñu teg loxo koo xamante ni police wax dëgg yàlla téye na ko mu ngi police di continuer li nga xamante ni liggéey bi ngir ñu gën a creuser xool nag euh, lan mooy waral ak ak li nga xamante ni moo waral ñu rey ko ba pare taal ko waaye daal police li ma ci mën a xam mooy am na ci ay piste yoo xamante ni euh, commencé nañ ko am na ci koo xam tey nañ ko mu ngi police bu Tivaouane euh, di sant bu baax nag ñi nga xamante ni ñooy la police de Tivaouane ak ñi nga xam ñoo la jóge ak la police scientifique ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoo bokkoon ci liggéey boobu di wax ni vraiment ñu ngi sant bu baax la police de Tivaouane di ci jiitale ki nga xamante ni mooy le commissaire Diouf liggéey bu rëy bi nga xamante ni moom lay liggéey ndax man ba ma ko xamee mu ñëw ci Tivaouane ba léegi amul benn crime bu am ci Tivaouane ñu dem weer te jàppuñu borom. kon nag euh, ñu ngi koy sant bu baax di wax ni sécurité bu buñ ko gënee yokk mu gënal nu vraiment ndax waa tund woowu jooy nañu guddi jooy nañu bëccëg ndax lii ñaaw téef la boo xamante ni tiital na askan wi yëpp kon bokki loolu moo doon information bi nga xamante ni moom lañ leen indiloon doon leen wax ni la da am na suspect boo xamante ni téye nañ ko pour le moment mu nga police bu Tivaouane incha allahu rabbi foofu la ñuy tegandi sunu baaraam euh, leneen lu ci gën a leer dina wax lañ leen mbir mi fii la tal fii la toll fii la toll ak fii gudd gart mooy am na ci koo xam moom tegandi nañ ko loxo ci ay liggéeyu police ak liggéeyu ñi nga xamante loolu mooy seen liggéey pour le moment ni am nañ piste boo xamante ni yaakaar nañ ni bala yàgg tuuti dinañ xam kan ga xamante ni moo def ñe jëfi ñaawteef yooyu ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm alxaaji Mbeg Jom ak Mame Ndokh TV jërë